Vous aurez votre émission tous les jours du lundi au vendredi les mardis et les jeudis invité lay doon tey nag on a le plaisir notre premier invité mu ngi nii toog moom lay bàyyi mu présenté wu il s'appelle Oustaz Alioune Niang macha allah xelam màcc lool ci ni ni mel am mbégte lool ci dalal la yaa Oustaz salaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullah yaa Cheikh Thiam. alhamdulilah alqaili fi muhkami tanzilihi yaa ayyuha nnaasu ittaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waaxida wa xalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wasalaatu wasalaam ala ashraf almursalin sayidina wa xabibina muhammadin salawatullahi wasalaamu alayhi ayuha almustamicuuna alkiram wa mushahiduuna alkiram assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Cheikh Oustaz Aliou Niang ñu gën koo xam ci avocat al Quran nekk ndongalu ndaw ci commune Biscuiterie fa tabaarakallaahu nekk conseil municipal nekkaat tamit porte parole da euh, grande mosquée ñaari tali porte parole de fédération des daara itihadul wataniya ak Sinico département Dakar fa tabaarakallaahu di jàngalekatu daara sëriñ daara. macha waaye li gën a neex daal ci tur yi mu tur mooy avocat Quran maa ngi nuyu ñëpp ñuy seetaan ndax xam naa ne tey soo bëggee dégg dëgg mooy télévision boo dem. Mm-hmm. soo zappee ba leeral point net. Mhm. leeral TV. Mhm. jàppal ne ñu foofa. macha allah adduna yëpp a ngi lay déggu Sénégal léegi lay dégg. di am kontaan bu baax nag jàkkaarloog ak yow. macha allah mu jaaree ci sama rakk sama xarit. wallaahi Adja koo xamante ne ni moom nee naa la ñun suñu askanu ñangeen. Mhm. cax ak jaaga suñ ko amutoon. danañ seet fu mu am ñu jéggaani ko. macha allah asalaamaaleykum waaleykum salaam oustaz ma am mbégte lool ci dalal la tey jii mu doon un plaisir pour moi bi ma la woowee tegoo ci baat macha allah nga oyof lool waaye amin toonu chers téléspectateurs comme je vous ai dit cette émission vous avez l'occasion non seulement de participer à cette émission via notre numéro ngeen wooñu au 88 des questions yoo xamante ne comme qu'actuellement on est en direct sur Facebook Instagram et sur YouTube aussi répondre ko directement tey thème du jour mooy néegu sëy bëri na ay tabu bëri na ñoo xamante ne xamuñ ci lu bari yow Oustaz comme que waxtu bi xaw na noo xot tuuti ñu jëm cee xuus rek xam nga macha allah Cheikh Thierno dafa nekk du leen néegu sëy danaan këru sëy hmm. mu bari ay néeg ay appartement yoo xamante ni ay ruq-ruqaan hmm. yoo xamante ne nii moo nekk ci biir hmm. ku ci nekk nag ak fa ngay dëkk waaye sëy mooy lan dafa mel ni bu njëkkoon nit ñi xam nañ ko waaye fi mu nekk nii li ëpp ci nit ñi ñett lañuy def dañuy seeti ñi di sëy ñi di sëy dafa am sëy ak seeti ak sëy seeti nag dangay dem di xool ca ko xool gis su neexee nga toog su naqaree nga dem sëy nag ku ci nekk da koy def fu la muuree nga dem kooku sëy la sëy mooy dem ci kër gi fa séene faa jur lu gën boroom kër gi mag ñi dañ ko daan tànn waaye fi ne gone yi ñooy tànnal seen bopp te dem nañ ba mujj yàgg bu njëkkoon soo gisee danga daan gis ñaar ñu am yaakaar ñi boole leen yaakaar juddu ci li yi di wax naan saa yu ma mujj baaba euh, euh, mujj bingal bonata su baay baaxee yaay baax doom lu ci juddoo rek nga xam ne nit mënta naaw nàmp meew galatiir mhm. ku nàmp meew galatiir am na ko neen ku fa jaar ci diggante bi mhm. mu mel ni tey soo xoolee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mhm. abdullah mi waajuru seyduna muhammad ba ca tolloo ñépp bëggoon nañu may ko soxna jigéen ñu bari bëggoon nañ mu takk leen dem na ba mu jàng buntu kër gi mënutu ca taxaw. ndax lu tax kenn nangootu te sëy di xaar doomu doomu Abdullahi ji. Hmm. mu Seyduna Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam kenn nangootu te maye ngir bëgg Seyduna Muhammad doomu Abdullahi takk sa doom. Hmm. loolu moo waral tey. mu euh, ab ci Abdullah Abdullah laa ko de wax gu ma ci Seyduna Muhammad Abdullah hmm. dégg nga. mais bi ñëwee ci Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu da nga daan gis su taxawaan ci buntu kër bi da nga gis ku nekk di solu sa solo sa doom ñëw naan ko jaaral buntu kër Abdul Muttalib ndax xëy na yonte bi gis la su boobaa dana dana dana la jël. gis nga at moomu kenn mu caasi. keroog biñ ko yebalee ci suñu yaay Amina. ba muy dem am na kom romb. ba mu ko gisee bëgg koo kar pour waxtaan ak moom fa tabaarakallaahu lam ko wax ne ko dan maa yebal mu ne ko léegi kon nanguwoo maa takk ci alal jii yépp maa ko moom sama bàyyee ko moom ci lu ma ko wax loola ji ñu jox la ko nga takk ma mu ne ko damay dem fu ma yebal ba mu demee ñi may ko yaay Aminata mosuñoo gisante tàkkusaan dafa dem ñu xool waxtaan timis may leen. macha allah keroog bi ñu yëgee ne Seydunaa Muhammad may nañ ko soxna. à quatre vingt quatre dañuy wax ne deux euh, quatre vingt dañoo daal di dee ca saa si vingt dix jigéen ay jigéen yoo xamante ni dañoo tolloo ci seen dix huit ans quinze ans. ñoo dee ca saasi. deux cent personnes ñoo AVC. ba bi ñu génn àddina wérut ndax bëggoon ko rek. Allahu akbar waaye nga xool tey ci li gën a jege ñu man la ko jox. muy ñaari mbir yoo xamante ne ni kii ci Mbàkke la bokk kii. ci siyeen la bokk ndax damay wax ne li kulli seen xadisu tey ñu ngi ci dernier jour bi nga xam ne mooy muharram suba ak jàmm ñu dugg ci safar. tey jii moom mooy mujjeetal bu bés bi nga xamante ni mooy moo moo ko ci muharram. muharram suba ak jàmm incha allah soo xëyee àjjuma jàppal na yaa ngi ci weeru safar. macha allah Cheikh Thierno. Mhm. ndax nit soo koy wax da ngay xool li ko gën a jege jël ci moom exemple. Mhm, gën a jege ji gën a yey. gën a jege ah oh, jeex gën a yey voilà mën naa la wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xool tey sëy ni ko doon jàngalee ma soo ko ñëw ci yoon. Mhm. yonent bi dafa mas a toog ba ci yàgg mu wax Fatima ne ko demal seeti sa bàjjen bu ñuy wax Sofia bi mu demee mu dem gane ji ko. ca booba ma nga ca baaliya ba baali baaliya ba amul woon courant amul ndox amul lenn ca ñoom ñu ngi ci dikku teeru bi waaye pour mu dem jàngal ko sëy ak nan la ñuy sëyee ak àdduna ndax sëy mag ñi dañ ko daan jàngal seen ay njaboot balaa ñuy sëy del doxe nii del solee nii del waxe nii del defe nii bu njëkkoon dangay gis sëy ci jëmmi jamono nit dana ñëw ci biir dëkk ñëw ci penc mi fekk borom këram nekk fa soxla na ko waaye ñimoo ko woo waaye dana ñëw ba sëgg ci ay noppam wax ci li muy wax ba demaat ca ñeneen ñi du ko dégg waaye say léegi war ma sa papa moomu pa li mu yaakaar ne xanaa déggoo ma maa ngi ca kër ga. di ko yuux départ départ naa wan ma ginnaaw pour nit ñi woon ne da ngaa jóge te fekk yaa ngay lor sa njaboot ngay ñëw tey yenn saa ba waxee fàtte mu dem yeddu jëli ko ba mu demee fekk ko fa mu toog ca néeg moom kese moom Fatima. bi mu toogee mais mu gis lu mat ci kaw néeg bi fanweeri ndab yoo xam ne bu ci nekk def na ñam mu xoolaat gis ci koñ bu ci nekk ñi def fa xiir mu xoolaat ci beneen côté bi mu gis fa benn mbootu bu ngand ngand mu ne ma man de sama pàpp sama maam jaaxal na ma waaw lii moom ak jëkkëram kese dong ñoo moo nekk ci biir kër gi mu def fanweeri ndab yi ñu ngi koy jox waaye yar yii moom amuti nag amuti bëy amut lu muy sàmm lu mu koy doyee ak mbootu mi nga xamante ni nii mën naa boon mbër hmm. ba mu ñëwee nag mu laaj ko ne ko waaw man de bàjjan ndab yu bari yi nga def nii ku koy lekk mu ne ko sama boroom kër dama bëgg saabu bu ma waxee ne ma tey palaa bii laa soxla fekk pare naa ko ba teg palaa yi war a sox yëpp dama ko dama dama ko dama koo defar ba pare teg saabu waxee rek bala muy mas cinq minutes ma indi ko teg ko ci kanam pour bëgg barke. allahu akbar mu ne ko ah, xiiri nag mu ne ko sama borom kër dafa naqari de rek cacam ca saabu bu xuloog man daf may bëgg a dóor ca ma bañ muy génn di uti yar pour sonn ma tegal ko xiiri pour saabu bu daj làmbee rek daj am na waaye kon mu. yaqin googu sa yéeme na de. teral utal sa borom kër yaa. degré degré googu noonu. degré ngëm la. bu dama la wax ëllëg bu sëy ndax cay la mu am cay la mu daj maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko wax. wallaahi mu ne ko mbott mii nag. mu ne ko sama borom kër handicapé la. te fa muy liggéey dafa xaw a sori. te 30 ans fajar laa koy jël boot ko ba fa muy liggéey ma teg ko fa. su heure bu jotee mu nga jël dafa handicapé mais 30 ans maa ngi koy boot muy dem di liggéey ñëw ca kenn xamul ne handicapé la. sutura. sutura soosu loolu xoola jàngat boobu nga xool tey ku mel ni maam Xaaji Malick ci safar bi lay mujje am doom ju ñuy soxna suñuy wax soxna Sofia ak Roqeya Roqeya Jaay soxna Sofia nga xool tey dama lay jox exemple rek mënoon naa jël ci yaay Roqeya mënoon naa jël feneen ak feneen mais soxna Sofia maam Xaaji Malick dafa mos na toog benn ñetti fan ca biir kër ga dara tàkkut nga xool ne tey ñi nga gis ñi dund euh, tey barke yi ña fa nekkoon lañ daj fekkewuñ ko ndax lépp de la dajo daloon kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa dal seen biir kër waaye nag lan la fa nekkoon ci kër yonent bi lu ci bari ma nga ci seen kër ñetti fan mu toog ba jàng ma ne ah sama borom kër bii nga xamante ne ni jàngale alquran guddi mu fanaane jaamu yàlla ñetti fan biir bi dara nekku ci lan laa war a mën a def ca dara nekku fi mu dem xool bi muy bi muy génn ñëw ci dugg ci seeku sëy jaaro xaalis yan ko jëndaloon mu dem wëq ko dem ca marché ba wanteer ko bu ma jaay ko de wanteer ko jënd ca sunguf ak dax luy dax dax mooy soow yoo boobu soow soow yoo xam ne soow niiw dégg nga bi mu ko jëndee andi ko waaye ba tey amul li nga xamante ne nii moom mooy euh, lu ko togg matt amu mu seet gong gi nga xamante ne nii moom la daan tëdd ak moom mu dëbb ko ba mu mokk mu jël euh, euh, bant yooyu ci la ko toggal ci la ko ci la ko toggal laax bi ngoon jot mu jël li nga xam ne mooy ndës basan tëral ko teg fa ma xaaji ma magum alaaji Abdul Aziz la booba tu tànk la mm-hmm. fa tabaarakallah bañ ca tëddee guddi jiit ñëw fett ko mu jooy jooy yu metti maam xaaj Maalik ne ko Sofia xale bi lu ko jot ba muy jooy jooy yu metti ji daawut jooy mu ne ko wax dëgg yàlla day ay la yéwén jiite ko fett mu ne ko lu tax tëdduloo ci seen ndes bi euh, euh, seen gongu gi xam foofu ngeen naan tëdd mu ne ko foofu day laax ba ma la jëndaloon dama amatoon matt ma toggee ko ko mu taxaw ne ko maa ngi lay seedeel ne la sa jëf jooju nga jëf soo ci ju soo ci jurut doom joo xamante ne nii àdduna yépp dana ko dégg tariqa bi ma xam yor kurus gi ba dagg ko xam ne du dëgg ci la maam xaja abdul aziz ganee jamono waaye yaakaar naa ne da baax ñu ne daa baax daa baax mhm, tey mooy kii dund di jariñe kii dee di organiser jamono saa boo xamante jamono ju toll fu mu la jë rek ñu indiwaat kaset alaaji Abdul Aziz boo déglu ay kàddu rek mu dikkaat mu dikkaat donte am na ñu fi nekk waaye nag ca barke ba dama ne barke du jëmm jooy gis du loo du looy làmb daj mais soo lu barke nekk ku ne ko jàkk da xam ne lii barke nga ca lu barke nekku soo ne ko jàkk da nga xam ne barke nekku ci. waaw mais oustaz. xaaju ci waañ ma ñëwaat ci beneen soo paree. acca euh, am xam nga temps yooyu nit ñi di bëggee ba ba ba boole diw demal sa kër euh, nijaay demal sa kër bàjjen nga xool fa jabar et cetera comme li nga wax léegi jamono ji nouvelle génération gi ñoom ñooy tànnal seen i bopp. Mhm. Euh, ndax loolu gënul woon. maanaam nit di tànnal ngir mbëggeel dong parce que ñu gën a bari tànnal nañ leen waaye gënalu leen oustaz eh. waaw xam nga am na foo xamante ma ñëw fa dugg fa tuuti rek wala su la neexee ñu mujj ko. defal lu neex mu ci dis disu safar defal lu la neex. dama la joxoon exemple ci maam Hadj Malick. Mm-hmm. mais ma andil la maam Serigne maam Mor Anta Sali. Mm-hmm. ca maam Diarra Bousso. fa tabaarakallaahu sunu borom dafa def ñi tànnal ko sox euh, jur wu ñuy wax maam Mor Anta Sali. Mm-hmm. mu nekkoon koo xamante ne nii ku teel a mbokkal alquran la ci fukki at ak juróom. Mhm. mu suñu maam jaara tey mi nga xam ne suba jàmm muy euh, ñi commencé. def safar. te bu yoru safar bi nee naa la. Mhm. ñu bari yu may yu bari ci am de jàppal ne 18 safar. Mhm. yàlla bari na wali yoo xamante ni nii yu ñuy dégg. ci leen leen defal lim leen di jafal ci 18 safar jour boobu noonu. Cheikh la ma tijaan Tidiane am laylatul katmiya katmiya boobu noonu. nga xamante ne moom may la goo xam ne mu euh, mbooleem mbindeef yi dañ dañ dañ leen ko dañ ko umpale mun mun mun munta encastré mun munta feeñ fi maam Cheikh Omar Foutiyou 18 safar ci la gane àdduna maam Cheikh Omar Foutiyou waaw ci la gane jamono 18 safar boobu ci la maam Cheikh Ahmad liggéey liggéeyile woon Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba yegg si sant leen ma ko mm-hmm. so way juram li mu njëkk a laaj ba nga ko muuree musta gis ma moor euh, xamut xamu ko dañ ko xool xam ne war nañoo ànd ñu jox ko ko di ko muur mu jaar ngay jaar xuru mbàkke ñu naan ko ah lii lépp ay toolam de rek dafa bari dongo macha allah mu ne ko ah lenn de xamal naa la ko li tool yii yaatu yaatu yaatu waxu malam xëy waaye su ma demee danaa fa ngontu ngontu moo xamante ne nii téeméeri xëy moo leen man mu laajte ndax yonent yi dañoo jeex ñu ne ko yonent yi day duutu du wàccati yonent yàlla Isa mooy avant yonent bi salaa bi mu ñëwee moo collecté mu ne ko ah fekkonte ne yonent yi des na jàpp naa ne mujj yonent bi mujj ci amoon maa koy maa koy maa koy jur waaye su ma demee fas yéene naa fa jur loo xamante ne nii waxuma la du nekkutub yonent bi de waaye dana leeral yonent bi nekk jant boo xamante ne dana leeral àdduna fa tabarakallahu dem xoolal tey ki nga xamante ne ni su daan togg ci amul matt day seet gaalam mu di ko xam ne benn bis muy taw mu ne ko sàkket bii dama bëgg nga ñëw téele ma ko mu ñëw ko téel ko pour mu takk ko amul lu mu ko takkee mu dem jël moom yéreem ñëw ñëw ñëw euh, jàppalee ko li nga xamante mooy sàkket bi mu takk ko mm-hmm. waaye bu takk ba pare xiin wi sàkki mu dugg ca fàttewul yëgul fu mu ne ko bàyyi pare naa. histoire boobu nag siiw na lool. fa la toog ba fajal ba mu génnee di julli mu ne ko waa lu tax mu ne ko ah yaa ma teela woon fii rek te ba léegi digguma ko nga ne ma bàyyil loolu tax ma toog foofu la mu am cey la mu daj Cheikh Thierno bu njëkk nee naa la jigéen ñi dañ leen daan tànnal góor ñi dañ leen di tànnal yonent bi salaa salaam jàngal nañu sëy nee na la na nga sang tàkk euh, jigéen ci ñeent na ko takk ngir taaram na ko takk ngir askanam na ko takk ngir alalam na nga ko takk tamit. ngir diine ngir diineem. mu ne nag su ñeent yëpp dajee jëlal diine fa ngay fa ngay wax falaay ñëw jëlal diine ndax su diine ñëwee dana xool sa taar doo ko woon ku sa borom kër. wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyatul ula waaye gis ngay jigéen ñi fi nekk nii nii nee naa leen soloo rek nee ko foo jëm. <laughs> foo jëm xaa da ngay génn ah dama am xew de damaa bëgg a defante ji damaa bëgg a toj damaa bëgg a toj xew ma bu soroo rek bu jékki rek tey moom day day génn laaj ko foo jëm mu ne kon léegi yow sa taar bi pa nekkatul pour sa borom kër pour soo génnee la ca diine su boobaa da lay tere loola mm-hmm. mu ne ko na nga takk ngir euh, sa sa askan waaw soo demee sa sa borom kër jàppal ne sa sang la waaye soo demee ci sa borom kër won ko ne ko ci yax bu rëy laa bokk waaw moom mi la fi indi moo yax moo bokk ci yax bu tuuti ak kan moo bokk nangoo bokk ci yàq bu tuuti. waaw yooyu allah kon diine da lay tere nga woon sa jëkkër ne ko dala koy dala koy aaye. mu ne ko na ko takk ngir alal waaye alal jooju noonu ah, su ko nit ki yoree ca tënku ci diine duutu xool ne man mi alal day def ni Xadija man maak ginaar ak nenam borom ginaar. wallaahi. voilà léegi nag kon nga gis ne diine ji moo tax taar ba su borom nga koy won yàq bu rëy ba da koy daal di fàtte. li nga xamante ne nii moom mooy alal ja da koy partager ak sa borom kër waaye jamono ji ñu tollu nag ku nekk da war nañ koo may jabar lu fu muy liggéeyee ah aji cër na leeral TV lan lay def ndaa nga am ñu ne ko kii de wax dëgg yàlla ministre la wala muudu muudu la wala kat moo yor société yii bu mu leen raw li ñuy njëkka def nu nuyoo ne takk wala mu ñëw ne de xaw naa bëgg rek danañ ko liggéeyee liggéeyee liggéey liggéey ba su bëggu doon sax dana toog ñodd ko ba mu nekk. ñodd ko ba mu ne daal ku yuddi te doo tal waccu da ngay xëy rek ñu ne takk nañ ko. da nga ne ku ku yuddi te doo tal waccu xàcceer na. xàcceer loolu moo waral tey nee naa leen lu kon boobu alal ja ça veut dire mooy kii ka su duggee fii ñëpp tekki waaye kii mën na alquran yée kii de wax dëgg yàlla jàmbaar na nangu naa julli nangu naa jàkk ji yée waaye ñi nga xam ne jàkk ji na lañ takk soo ne may sa doom yàlla ni dimbali ñi daal dugg ci moom da ngay biime rek. <laughs> cas social <laughs> cas social. cas social bu ci duggee da nga ciy rek. bay seet leen keneen kii moom daal sa waay ah, jàkka ah, jàkk ruus ko. lay ABC yorul yorul. voilà ah. nga xool ne tey <laughs> nga am am dugg na. nga xool tey beneen bi tamit. jamono ji dañ la daan seetal waaye xale yi ñooy seetal seen bopp ca mag ñi dañ daan xam démb xam néeg yi war a ñu mën a sëy ak néeg yi nga xamante ne duñ ay sëykat ay ay seetikat lañ waaw am ko xam ne day seey nag. nga xool tey ah euh, ku nekk nag ci lan ngay takk nekk bitim réew gis koo xamante ni nekk mu ci Facebook bi peinture defar noo xamante ne nii nga gis ko ci WhatsApp ba Facebook wala ngeen wax waaye bi lay tasee da ngay découragé. puudar waaw mu ngoog. nee na nee naa leen <laughs> soxna eh, ah, eh, WhatsApp ba koy tas. des na soxnay ah. Facebook. Mhm. ak Snap yii waaw. xale yi léegi kenn phototul naturel. ba déedéet naturel amul naturel a bëri tut ndax ku ci nekk yaa ngay seet photo bu yàgg wala photo bi nga demee woon xew def ko profil su ko defee soo partagé loolu ñëpp yaakaar ne nii nga mel. te fekk ne léeg-léeg nit man du kii laa te nag wax ne nit ñi sooy wax ak moom ci télévision ci téléphone koo xam ne gisoo ko woon wala xam yaakaar ne tubaab bu ñuul ngay wax. seen baat nag dafa neex yow. ñoo koy def nag. waaw ñoo koy tey ah, fa wa waaye nag falaa tax daana fil fil qawl fa yatma alladi fi qalbi marad da ngay gis koo xam ne soo na kii may wax ma kii xanaa tubaab bu ñuul la waaw nee naa leen la sama maam xaaj Moustapha Sarr waxoon mu ne tu ay nasaraan daal tubaab soit weex na xàtt ak kaani wala mu saf sàpp ak suukar ndax gis naa ne ni suy làkk ara français uh-huh. da nga gis muy biiñ wallaahi wala mu jeg jeg di tàqamti ko di meleste ko <laughs> <laughs> mu ne wax la xàtt kànni wala mu saf sàpp ak suukar. ndax ndax taxamti ko. voilà léegi nag su ko defee nga gis noonu wala ngay tasa ca xew nit ki sañse tax nga xool ko ca loola ak nam defaroo su sër wala nga xëy gis ko ci këram. soo ko xoolee mer. wala nga feexe noo ci génne soo ci duggee ba ca bopp ak baat nag da nga koy jékki-jékki takk dimanche altine nga fase <laughs> ay Thierno allah <laughs> léegi Oustaz bu uh-huh. fekkee par exemple am ñoo xam ne. Uh-huh. bëggatuñu léegi dañuy miin xale yi dañuy xemmem jigg mhm. parce que alal ga mhm. parce que leneen ak leneen loo mhm. xamante ne daanaka ñoom am nañ ka léegi yaa oustaz bu fekkee ni par exemple mbëggeel amatul ci relation mbaa sëy dana fa dana fa am yoon waaw mbëggeel am na waaye bareetut li yow saa sam la xayru kathirun wa qalilun yiw bari na lool waaye ñi koy def bariwut nee naa leen bu njëkkoon bëggeel moo am ndax dangay bëgg sëy ngir sa doom te doom da koy préparé jur ku ñëpp yi topp jur ku ñëpp yi déglu jur kuy séddale jigéen moo jigéen jigéen a koy jur te jur sëy ba du doon intérêt sëy la cay la mu am cay la mu daj nga jur doom joo xam ne ki ku nekk bëgg na koo jur. waaw oustaz sëy intérêt la. c'est nekk ni sëyu léegi intérêt la. waaw mais balaa dara di xew islam sax jàngal nañu ne comme par exemple diw am na alal mën naa koo mën naa koo leen. waaw mën naa sëy ak moom loolu intérêt waaw intérêt moo tax xam moo naa am taar taar dong. nga takk ko ca loola. islam may nañu ko. waaw di dama na la yow de xam nga l'islam daf la wax la su la neexee nga takk lii ngir jigéen ngir taar bi su la neexee nga takk ko ngir alalam. Ah, su la su la neexee nga takk ko na waaye mais nag mu ne la pour diine jë. waaw am na waaw naam xam nga am na góor ñoo xam ne xam nga xam nga dañ leen a takk. waaw góor ñu ñuy takk. am na ñuy sëy. waaw jigéen góor ñuy sëy. yoo xamante ne nii leer na ne. léegi statut jigéen ñi. dañ takk nañ jëkkër ngay dégg. waaw waaw ah, ah, loolu la ñuy takk. wala dañuy takk waaye dañ leen a takk. am yoo xamante ni sëy eh, sëyu suuf lañ koy def ñi mun koo yeggee ci soxna sax waaye takk suuf lañ koy def léegi nag su ko defee nag ak góor ñi sëy mooy gis nga kii kët ah am na kër am na oto am na situation mais jëkkëram dee na wala jafe la mu jekki-jekki nga xool ko xool la nag tànn de dañuy tànn de am na koo xamante ni euh, daan daf daan wër fa tabaarakallaa su daan wër dem ci jumaa yi suñu xadaraa ba pare rek mu jeg ne imaam seetal ma foofu daal koo xamante ni nii am naa kër am naa oto am naa dépense soxlawu ma ko lu dul jaamu yàlla rek kon nag imaam jox ma ko imaam jox ma ko seet mu ne ko imaam day mujj yàgg jaaxle na ko seetal. su ko defee moom mu tànnal boppam pour ñu bañ a may imaam mais comme ci gën a yaakaaru xool ne Cheikh Thierno mi tabaar fakal la jeune la xaw naa dëgër ci tabaar fakal macha allah nga daal di koy tànn waaw mu tànn ma macha allah <laughs> mu tànn su ko defee su demee ci kër ga a <laughs> dana lekk dana naan wala dana daj loo xamante ni nii. mburu daju ko ci taal da ngay jékki-jékki rek xëy raw. borom salade beeg borom. ginaar yi mu demaat ci keneen ki. ba mu jeex am na boo xamante ni HLM la ko defe woon. mais bi mu ñëwee tase faa keneen dafa nekk kii utul ku mu jaamu yàlla ku mu rey la bëgg. am na ci ja am na ci dëkk bi am na ci léegi nag tey dama wax ne sëyu léegi la ci ëpp mbëggeel am na waaye intérêt la ñuy gën a bëgg. waaye léegi nag jigéen ñi góor la ñuy war waaw xam nga nee naa leen waxuma la léegi eh, jëkkër ja ni mu jafe waaye far waxuma la far sax waaye faru rab sax dafa jafe. raar na nag léegi faru rab <laughs> moo jafe ci dëkk bi. amatul <laughs> moo xam nga comme faru rab di jafe faru faru war a takk. xale yu bari xam nga tey dama ne jigéen ñi xam tax jigéen su baaxee tudd jigéen jigéen la tudd. Ah. jigéen. la tudd mais su mais euh, tey damay wax ne euh, jigéen ñi. Mhm. koo ci gis. lii problème moom mooy man bëgg naa boroom kër waaye man kottu képp kes dew rek man ak sama jëkkër. am na ci droit ca xamul ne am na ci am na ci. Ah, loolu loolu amu su ci amu ci droit ndax sunu borom moo wax moo ne masna wa sulaasa wa rubaa fa in xiftum allaa taalidu fa waaxidatan mu ne na ut benn ñaar ñett ñeent waaye su la leeree ne ñoom ñeent ñooñu mënoo mënoo leen a yor addalan ci maandu ak lépp parewoo physiquement moralement mentalement financement fa waaxidatan yemal ci benn ba loolu la jigéen ñi doon naan yow say sa eh, nga boot eh, sa mbootaay jotul li ngay uti gàmb di ci di ci boole. la mm-hmm. xamul ne fi nekk nii xaaj Cerno su góor ñëpp jëloon ku nekk ñeent. yaa ngi dégg ku nekk ji góor ñëpp am ñeent day desaat lu ëpp la lañ jëloon. Oustaz jaaraatal foofu loolu neex na ma trop nga ne góor bu nekk ci àdduna bi. dama ne góor gi góor yi àdduna yi. Mm-hmm. suñ jëloon ku ci nekk li leen yàlla wax ñeent. lu mm-hmm. teg jigéen ñi des. jigéen ñi bari nañu xam nga lu ko waral. da ngay gis tey benn góor am lu mat fukki ñoo xamante ni ay coram loo xamante ni yàlla keneen am keneen am. à côté way des maîtresses et cetera. waaw mu ngoog te looloo tax nag fi mu nekk nii jamono ji li tax mu doy waar xale yi dañoo teel a dugg ci àddina avant ñuy majeur. maanaam dañoo dañoo teel a bëgg sëy dañoo teel a bëgg sëy xale yu góor yi loolu moo tax ku ci am 30 ans tële te bu nekkoon mag ñi dañ daan yor ñetti soxna ñeent te ku ci nekk di njaboot. maa mbirub télé boobu yaakaaroon ni feebar la. non du feebar pola ak lekk yi bu njëkkoon mag ñi lekk yi xew daawut xew xew. waaw ay ay gis jimbo yi nga gis nii jimbo yi nga gis nañ ma baal ak ñoom. ay ay ay génération yi yëpp ay yooyu sax safal yéen gën a bëgg di ko jox góor pour mu lekk mooy posonam. fi mu nekk nii rarement ngay gis ko dem ba am 60 ans kër ga nga mënata ca dara waa fekkente ne yow bala ngay. Ah, am cinquante ans yor ñetti jabar ñeent ñi lay joxi lexe yoo xam daanaka la koy mujj la koy mottali mooy ñu lay jox ay produit yoo xamante ni nangam loo tax kër goo dem ci yenn kër yi ana borom kër ga uh, faatu na rek mm-hmm. ca léegi nag tey góor ñi uh, ëpp lu ñuy faatu nag mm-hmm. jigóor ñi ñoo ëpp lu ñuy faatu te li ëpp ci liy juddu jigéen ñi la mm-hmm. loolu nag fekkente ne tey yow jigéen ci yow yaa ngi taxaw ne sa man benn kese lay doon suñ ma utalee wujj jigéen gi day mel ni koo xamante ni da ko utal combat. dañ koy boo xam ne Modou loo Balla Gaye lay doon. <laughs> saa bu leen taxawee taxawee suñ utalee wujju loolu lay def fu mu xam dana fa am dem lu man dana ko def lu mu jox dana ko jox ci sëriñ si. Mm-hmm. na tas wala su ñëwee bu mu fa tekki dara. loolu moom soxor la. maa bëgg a jur doom ndox xam lu tax jigéen moo fiire noonu. dañ ko doon ci seen maam Adam. mais Oustaz. say mm-hmm. tubay. waaw xam nga damay wax ne. jigéen waaye da ngay xuus ci loo xamante ni man nee naa la foofu bëgg tamit damay dugg rek. foofu laa bëgg jeex na xam nga damay wax ne jigéen soo ko doon jox muy lekk ba suur muy naan ba màndi nga tëral ko ci palais mu nekk ci ay château jox ko ci armoire am yépp mu nekk or yére bu mu sol un mois bët bu set du sol beneen ba ca kër gi baaxut dana ko uti feneen kër gi baaxul mooy. kër gi baaxul mooy tubay jëng ma laaj xam nga yaa ma ko laaj wala laajoo ma ko. maa la ko laaj kay. ah jeex na voilà euh, njaboot ci tey li ëpp ci sëy euh, mooy moom mooy mooy mooy mooy mooy li yent bi koy war a dëkkal kër lay doon mm-hmm. koo dundal yaa ngi dégg dépense la war koo sàng yéere la dépense la waaye war koo dëkkoo muy nga jox ko lim moom. ma nga jox ko lim moom jigéen ñi looloo leen gënal ci lépp lu manti doon bari nag jigéen ñoo xamante ni yaa ngi seen biir kër nga xool seen borom kër yorul dara waaye ñooy liggéey di ko jox. duñ dem de. xalaatuñu ko kër ga la. am ñoo xam nag seen i yi lañ koy kal. wa waaw xam nga lu ko waral mooy c'est parce que seen borom kër am na lu du jeex. te buñ ko dem te bëgguñoo ndax su alal ji lañ man am foofu amuñ ko feneen. yaa ngi dégg te leer na ne matut. ñu mottalee ko foofu waaye foofu mënut a ñàkk. benn góor nee na est-ce que du base su sëy loolu tamit. base su sëy base su sëy loolu la. ci gàttal daal yeneen yi des day mottuli. ay complémentaire day mottuli. alal du sëy. ngor mooy sëy jikko mooy sëy. waaye loolu su baaxut. léegi tey coow li ca kër gi am gis nga Cheikh na Fa boo déggee xuloo jigéen jam nga mu muy yaaxar yaaxar ci kër gi. ca doo doo ca lenn kër gi la. am na sax ñu yàpp ñoo xamante ne seen seen seen seen seen tubay moo dëgërul dong. loolu waaw déggoo xam nga tubay yàlla euh, loolu yàlla mooy bind nit ci yemalu yemalewut. Mm-hmm. dégg am na ñoo xamante ni danañ fexe ba dugg ci sëy ca fekk ne lan ca yaakaaroon nekku fa. maanaam. ah yàlla bind yemalewut rek. xam nga yàlla dafa bind dafa non dafa euh, yaakaar ne ko yàlla dafa bind ñii gàtt. Mm-hmm. ñii. gudd ñii gudd. Mm-hmm. ñii nekk nit ñu ndaw ñii nekk nit ñu rëy. waaye su la leeree ne yow mi kët nit ku dëgg ku dëgg ku rëy nga tàmm woon nga dem fekk fa lu tuuti sa yaakaar déjà tas na. Oh, bis boo génnee ba for la ren su soo moytuwul ñàkk na la. <laughs> ñu bari loolu leen gaañ loolu mooy ci gaañ su ko defee nag nga dëkkee wax ak wax ak kii wax ak waaxu ak mer ca fekk doo ca man dara. fekk ca kër ga la. am koo xamante ni yorut yorut lu suukar màdd. waaye soxna yi ñooy daw di ko wër. lu mu bëgg ñu defal ko ca kër ga la. kon kër lu am solo. donc mooy lépp ci sëñ. baax na waaw le temps le temps qu'on installe Adji euh, ñëwal ci fi nga fi nga fi mooy fi nga tolloon directement le temps que Adji di installé. Mhm. muy. muy euh, genre sëy intérêt. ak i néegu sëy ak nan la fay demee est-ce que tey nii comme ni ñu doon yabee mag ñi noonu lañuy ñuy xale yi léegi. Mhm. enetaam yu xew yi ak yeneen yoo xamante ne daanaka nit ñi dañ koy daal di def. xam xam nga bu njëkkoon da ngay jur sa doom fa nga ko war a jure. Mhm. la ngay ñaan yàlla mu màgg noppal leen. Mhm. yaa ngi de loolu tax na yëf yi xaw a metti mu màgg noppal leen. ñu ne kii mooy taaw. ay rakkam nekk ci biir kër ji. mu am soxnaam. soxna soosu muy aawo aaw boobu noonu du aawo yaay la sooy takk bul takk soxna bul takk jabar takkal yaay soo liggéey mu jur ko ñu coow aaw boobu noonu su ñëwee mooy mooy moo war a noppal sa yaay ji ci biir kër gi mm-hmm. lam yoroon mu yor ko bëgg doomam téye yaayam waaye loolu fu mu nekk nii dafa xaw a jafe ci jamono. am ñoo xam ne bëgguñu sëy ku yaayam dund. de de am na ko xam ne li mu koy njëkk a laaj sooy doxaani. pour takk. ana sa yaay <laughs> mooy faatu na <laughs> mu engagé wu. <laughs> suñ ne laa ñu ne mu ci kër ga. day rek li mu njëkk a laaj kër situation kër gi de yaakaar ak kan a dëkk. maa dëkk man sama kër famille laa nekk de. sama yaay. sama yaay samay rakk yu jigéen euh, euh, samay rakk yu góor ñaata lañ dalal ko dalal ko lijjanti. soo nekkoon nangam nang am naa ñeent ñeenti rakk yu góor am naa juróomi rakk yu jigéen li muy njëkk di mooy tiit. naan la mënuma si waa ah man de fa kër famille dama ko ragal de. loo ñeme yéen ñaar kott képp kese su ngeen xoloo ku leen ku leen jubale su ngeen di xeex ku ce que tamit intimité am na ñoo xam mais mais euh, comme on dit une relation intimité tey nit day soxla jëkkëram mënu koo def kër famille. waaw xam nga dafa am loo xam ne da nga jàpp ne ki ko jur ci kër famille la nekkoon ba jur ki nga bëgg. waaye jamono moo toll. waaw waa jamono fi mu toll nee naa jamono laa yughayyiru Allahu ma bi qawmin hatta yughayyiru anfusahum jamono soppeeku nitu jamono ñoo soppeeku. looloo tax lañ daan amatuñ ko. waaw mais diine day dox ci jamono sax. waa diine ak jamono waaye nag diine ma nga fam nekkoon ba léegi de. gisoo benn aaya alquran ba mu jamono soppeeku dong jamono bu soppeekoo dañuy soppeeku ak moom ànd moom ci diine gi waaw dañuy soppeeku ànd ak moom mais bu du ci du ci ay waajur damay wax ne tey nit mën naa xool ne kër gi xat na yaa ngi ngir xataayu kër mu dem luwe ji waaye nag saa bu xëyee ñu yendu ji ci kër ga. su mën na bañ a xat moom mu soxla jabaram wala jabaram soxla ko yenn jonge yi xeetu jonge yoo xam ne. Mhm. jigéen daf koy soxla def. ci ah. appartement te mënu koo def. ci waaw exemple tey loolu ba tey bokkut ci sëy am na sëy yoo xamante ne nii li ngay def ci banlieue bi ak li ngay def ci Dakar bokkut. Mhm. xam nga Dakar këru famille. Mhm. yooyu man na ki waaye ça veut dire mooy kon yow da takk soxna uniquement pour bànneex yow kese. pour ah, mais lan la ñuy takk. waaw déedéet mais takk ko ngir mu ngir mu nekk ci biir kër gi. ban biir kër gi nga xamante ni moom la nekk. déet mën na ñàkk. waaw waaw su mu neex mu ngi mu ngi aju ci ci li yunfiqu du saatin min saati wërsëg bi ngay yor waaye su la leeralee da ngaa nar a takk soxna jël sa yaay muy souffrir ngay reere ganaar muy reere soom bi ak say rakk ak say pàpp yaa ngi dem ñu lay ñooy joñalee giraar di la raxas sa say tànk loo wax ñu kii la soo amee ñett mu xaaj jël ñaari yóbbu seen kër yaay benn bi mu dencal ko doomam. loolu wala xaw loola. ah xalaas léegi nag fekkente ne tey yàlla def na famille boobu ngeen nekk ci biir kër gi. Mhm. ñaan la ci yow. Mhm. ndimbal la. Mhm. su ko defee moom it coono ga sa yaay ga sa yaay nekke woon. mu mu wàcce ko coono ga. taawul ko ko. say goro. say ñu ne lu tax ñu ne ba ca fayli ba. waaye bari nag koo xamante ni soo ko takkee li muy njëkk a def dëddale la ak sa sa yaay dëddale la ak say rakk waaye nag yow mi nga xamante ne nii yow la sa doom andi ci biir kër gi andil la doom andil la andil la doomu jàmbur jàppal ne su sa doom ju jógewun fii dem fa neen doo bëggum dara naqari ko fa kon dangay ngay jàpp ne kim la indi mooy sa taaw jàpp def ko mu gënal la sa doom bi nga jur su boobaa day jàpp ne kër gam jóge kooku duutu yaayam sa yaay mooy yaayam sa papa mooy papaam. d'accord te tamit mawadda rahma ba euh, sëy loolu mawadda ak rahma mawadda ko mooy cofeel bi pour nga am ko. rahma bi mooy ànd gi ngeen nekkat. waaye fekkente ne yow dongul yaa tax yow lay sëyal. ah dafay des nag su boobaa dëgg rek la nag. <laughs> jërëjëf Oustaz alors nous voilà ci deuxième partie de l'émission comme à chaque fois nee naa leen aji la ñuy daal di dalal aji salaamaaleykum waxtaan bi xaw a neex rek moo tax ñu daal di ci xaabaabal ah aji vous macha allah maa ngi lay nuyu Thierno di nuyu oustaz bi di ko ziyaar bu baax a baax di ko wax ni uh, waxtaan bi am na solo te aussi uh, neex na dégg lool. ci noonu nag di nuyu suñuy internet ak aussi téléspectateurs yu télévision Leral TV comme ni ñu koy defee rek à chaque fois tous les jours seen rubrique bi nga xamante ni moom lañu ñu dippee uh, biir internet oustaz bi nag gis ngeen ko am na ay question yoo xamante ni posé nañ ko ko bu yaatoo rek ñu gën ko ko posé mu jox leen seeni ay réponses. allez-y donc s'il y a des questions chaque fois comme nii la am na internautes yoo xamante ne daf dañuy suivre à partir de là dañuy jël ay questions yoo xamante ci internet bi a dugg ci émission bi am na ñoo xam ne ils préfèrent rappeler au 88 628 lañ koy kal di poser des questions donc vite fait si vous avez deux à trois questions pour Oustaz avant que mu développer encore une fois d'accord Thierno koy defee rek à chaque fois wante balaa ñëw ci questions yi ñëpp xam nañ ne dañoo dëgmal li nga xam xamante ni moo di 18 safar bi sànq nag mu doon wax lu am solo ci ki nga xamante ni moo di soxna maam bu Bousso juste rekk di def benn parenthèse que ni moom mës na jël sax armoire am euh, parce que borom këram amul woon lu mu ko toggalee mu dajji armoire bi toggal ko borom këram def ko ay matt mës na aussi dem di rooti ba dugg ci biir teen bi. moom xalaatul ni sax gaañu na mais li ko ñoroon rek mooy mu am ndox ba dem toggali borom këram donc loolu juste di leen fàttali que ni euh, Sénégal am na ay jigéen ñu jàmbaare am na ñoo xamante ne aussi ay référence lañ euh, na merci beaucoup en mhm. tout cas directement euh, ci question yi nga xamante ne déjà ça nous attend mhm. Mhm. kii nag Koumba Ndiaye la moo ngi rafetlu émission bi bu baax a baax depuis euh, Maris moom nag day laaj oustaz képp koo xamante ni bëgg nga am boroom kër yan ñaan ngay def <laughs> ñaan pour am boroom kër waaw baax na ah, bon euh, xam naa ni euh, ABC da nga ñëw directement ci troisième question. d'accord mais euh, allez-y. ok d'accord ñu ñëw ci yan ñaan. Mhm. waaw yan ñaan ngay ñaan bu fekkee ni bëgg nga. am borom kër d'accord ñu ñëw ci deuxième question bi Mara depuis Touba moo ngi rafetlu émission bi bu baax a baax oustaz moom nee na warugar lan la ci islam wax. parce que léegi gis nañ ni euh, dañuy joxe ay 1 million deux million ay oto léegi nag loolu dafa nekk tendance lan la ci islaam wax. warugal. Mhm. kon ñaari question yan ban ñaan ngay ñaan ak ak wargal est-ce que bokk na ci islaam mooy. lu ci am na aussi troisième question. allez-y vous pouvez mhm. enchaîner directement comme ça mu répondre. d'accord faatim Achalem moom aussi moo ngi ñuy suivre nee na euh, nan ngay mën a différencier boroom kër ak jëkkër. c'est bon c'est bon pour les trois questions. si c'est bon. alors première question Oustaz yan ñaan ngay ñaan ku bëgg am ja jëkkër. borom kër yan ñaan mais ku bëgg am jabar nag tamit du benn la wala. <laughs> ñaan bi benn la ay ca <laughs> bi euh, ce que warugar lan la ci islam wax. Mhm. beneen bi lan mooy différence entre jëkkër ak borom kër. <laughs> xam nga yaa ngi euh, macha allah moom. Mhm. walillahi al asmaul husna. Mhm. waxoon na tamit xulu doo laa oo doo raxmaana ayam maa taddaw tey borom bi subhaanahu wa nangu la jaar mu jaamu sunu borom rek sunu borom soo ko defalee say devoir soo ko laajee say droit mu jox la ko boo defee li la war am li nga war am li la war jërëjëf kon bi maanaam soo soo su julli jotee julli su koor jotee koor azaka su jotee azakaar moytul sol loo xamante ne nii leer na na ni ki ku lay kuy ut ku baax du la du la du la gis. soo jullee ba pare. toogal ñaan sa borom la nga xamante ne nii euh, macha allah moom la ñëpp yi jaan. sunu borom. waaye nag soo defee euh, faatiha. juróom-ñaari faatiha. ñetti salaatu ala nabi loo ci ñaan ma nangu. macha allah faatiha. Mm-hmm. juróom-ñaari faatiha. soo defee juróom-ñaari fa faat euh, soo defee bismillah astaghfirullah wa atubu ilayhi nga def ko juróom-ñaari yoon. nga def juróom-ñaari fatiha julli ci yonent bi nee naa la amul loo koy ñaane semaine suñu borom du ko na yeneen yoo xamante ne ni mm-hmm. a siru sirul ida jawada idnayni fasha am yoo xam ne ay mbóot la am yoo xam ne alquran ma farat naa fi eh, fil kitab min shay mm-hmm. fàttiwuñ yoo xamante ne secret la inna minal umuri ba maa laa bayyin am yoo xam ne la pour ci yooyu mm-hmm. loolu la ñuy mag ñi di wax naan tilimut tilimut amut jigéen boo xamante ni da nga koy def wala góor fekkee jigéen la nga bind ko alxuraan la nga awee ko sagar bu vert def ci tuuti or mu takk ko ci kii bala muy mat al ñaari weer dana dégg alxayri man maa la ko wax. jaaraat jaaraat ci. dama ne la am na lu ñuy bind. mu awee ko sagar bu vert def ci suuf sungu sunguf or mu def ko ci euh, euh, boppam. du am ñaari weer. mu am njëkk maa la ko wax. am na ci sax beneen boo xamante ni li ci gën yomb xam nga moom leneen la. am na benn kii booy kii rek. Euh, loolu nag leneen la ji nga xaj yi nga xam ne ñoo nekk ci mbedd mi dee léegi ci xaj bu jigéen mhm. lu mat fukki xaj topp ko su tëddee ñu tëdd su toogee ñu toog mhm. tànk yooyu ñi nga xamante ni ñooy euh, ñoom la ñuy demee mhm. loolu nag du alxuraan loolu nag bi maanaam taa mooy du loo xamante ni téere dañ ko indi mais xam-xam bu waaw du ñuulu sax mais buñ fi bàyyi la tànk yooyu noonu am na loo koy booleet su ko sangoo su dee jigéen dana am jëkkër dans un mois su dee góor dana am jabar. mbaa ñu bari duñ ko topp. ko ñëppay ñëw kay mooy tànn. mooy xool ah su ma paree ñeneen ñu dem xaar. macha allah beneen bi ci des. Mhm. mooy muy euh, warugar lan la ci. islam waaw warugar wax na dëgg. ndax fi mu nekk ni ba def ko puukar yi mooy li ma la waxoon dafa métti ñu ne nit ki dafay takk soxna. waaye doomu baayam bii de wala mbokkam mi mayoon nañ ko un million. kon mu ne def dangay fexe ba defal ma plus ndax ma def lu kenn def mu sa def. ay defante ñu am ci famille bi. defante la sëy defante la lan ko def léegi nii mais defuñ sëyuñ ko ngir yàlla mooy defante tey ku sa moroom am jari bay soo jaru bay njëgu bay nga waaye nag da ngay bëgg tey <laughs> nekk <laughs> lu ëpp bay léegi su ko def mayoon nañ kii lii man nañ ma fay fexe ba. Euh, euh, may ma lu ëpp loola mm-hmm. loolu nag xam nga dafa am can am warugar mm-hmm. warugar du lislaam mm-hmm. can mooy lislaam can gi nag mooy li nga xam mooy takk sëy bi ñu koy wax rubu dinaar loolu ca lay toll ñu nattale ko ci ku mësta sëy vingt mille ba vingt cinq mille dana nekk rubu dinaar ñu nekk ma mooy can gi can gi mooy li nga xamante ne nii su duggee sëy bi dugg nag su dëggul sëy bi bokkut ñu ne nag sedd yaa ngi nii jox nañ ko can paasewul loolu de loolu mooy farata ja lekku ndey baak lekku baay baak waru gar yi kooku bi wa <laughs> wàllu góor yi di la ñoom ñoo koy waxtaane may naa ko lii. du fara islam du ci dara déedéet wala junaaha aleykum fi ma taraatitum jigéen jar na milliard jigéen ma akramahunna illa karimun wa ma ahanahunna illa lain yonent bi salaa salaam bi muy génn àddina lim ñu njëkk mujjee dénk mooy na ngeen na ngeen yërëm jigéen ñi ca rafetoo ak ñoom. waaw na ngeen yërëm jigéen ñi ca rafetoo ak ñoom kon yenn saa sam mu ne maa akramahunna illaa karimun ku leen di teral di leen defal teraanga di leen wax wax ju neex di leen negg neggee di leen jox seen cër yenn saa sam nee na yaa gën waaye koo xamante ni nii dóor ak saagaak bi ma xak fayoog dóoroo fayoo atiwoo xeex puusoo paasoo ah nee na yonent bi nee na ki gën a bon ci ci nga bokk dem na bay sukuraat di dénk laa leen la jigéen seeni pexe mm-hmm. rëy na nag ndax ina kay de seytaane kaana daifan seytaane mi ngay dégg yàlla alxuraan nee na pexe mu tuuti la waaye pexeem jigéen kenn xamu nu mu toll. loo tax mu ne la jigéen saa boo amee problème waxtaan ceeg moom tak solution problème solution waaye soo naree def lu baax def ko pare soog ko ko wax ndax dañoo bari yërmande am na ko ñëwoon ci ne dafa bëgg a dem jàngi pexe jigéen dugg àll bi xool ñi dangereux yépp ñu koy laaj ci góor ñi lan mooy seen nangam ak nangam jigéen jigéen ñi lan mooy seen pexe. muy wax rek muy bind bindu kàggu boo xam ne dem na lu mat juróom-ñaari at ñëw fekk wax jigéen ñi ca teen ba ah da da ngeen waxoon ne pexe jigéen kenn xamu ko man de waxuma yéen lu ngeen lu ngeen lu ngeen di pexe waaye lu ngeen xalaat sax mu ngi ci biir téere bi jigéen ñi ne ko loolu yegg gun ci da ngaa demoon juróom-ñaari at pour jàng ñi mokkala ko mu ne yéen da ngeen di wax rek nan ban yegg ci kër ga ñu ne ko am kay yen ñu ban yegg ci ëtt ba mu yëkkati euh, ay teg bi ci pindu bi di yenn gaa yi ñu bokk mu wàcc ci teen ba mu yenu loxoom ñu ne ko bii benn la ci suñu pexe <laughs> kon la lam lam taxade woon ci juróom-ñaari at. Eh. jigéen ñi. ci ci wenn wax. non non ci ci. simili rek une minute raxas nañ raxas nañ loolu suñu borom ya seeni xel ci pexe dara dara fayu ko su baaxee jigéen la tudd waaye soo ci amee bu bon. ah pop pop yàlla yàlla ci yàlla musal metti na ak ban. <laughs> Euh, beneen question bi mooy euh, lan mooy différence entre jëkkër ak borom kër. xalaas. loolu euh, hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna loolu alxuraan wax ñoom ñooy suñuy yére ñooy seeni yére gis nga tey li tax sama yaram bii ni gisoo la ca biir yére yi la mooy jigéen ça veut jigéen ñi tamit loolu li bëgg a wax foofu alxuraan suturaante ñaar kese la ma wadda mbëggeel raxma yërmande ca alxuraan fu mu nee góor def naan jigéen waaye nag seen inna sa'yakum la shatta seeni seeni seeni jëf bokkut jigéen am na taxawaay bu mu war a taxaw ci biir kër gi lu ko war xam naa du fi xaj mais góor am na lu mu war a taxaw ci biir kër gi su góor gi taxawee li mu war a taxawee dem ci kemtalaay kàttanam jigéen ñi dem taxaw kanam kon kër gu neex la am loolu mooy waral tey nit dem ba boroom këram génn àddina duutu nangoo am. mais lu bari nag jigéen ñi rek la ñuy ŋàññi dañuy bàyyi góor yi waa xam nga euh, dañuy ŋàññi jigéen ñi xam nga damay wax ne jigéen ñi. Hmm. li ko war mooy màggatu yor-yor yi soo demee foog nañoo nee nañ rek waaye am na ñoo xamante ni nit ki loo ko nettali mu nettali ko borom këram alaakulaa yem ci tànkam nangoo jaam yàlla ñu koy ŋàññi duñ bari de danaan gii ku baax la waaye koo gis ñi ŋàññi ko rek dama la wax ne la ñeent ñi ku leen takk. da nga yor jikkul ñeent yi muy ku takkab doxkat da nga jikkoo fiir hmm. ku takk waxkat da danga ji danga nga da nga jikkoo dóor ku takkab jàmbatkat da nga jikkoo euh, gaaram place hmm. waaw ndax lu tax damay wax ne euh, nit fekkente ne day dox rek heure bu nekk mu tàggu gàddu saagam sangu par ne la maa ngi dem hmm. fa nga jëm ne foo jëm sa dox bi bari na de bët bu set maa ngi dem hôpital maa ngi dem fële lële. est-ce que sax est-ce que yaa ngi dem. waaw kon kon ku dëkk ku takk jabar euh, boo xamante ne nii doxkat la foog nga jikkoo jikkoy fiir ndax sa dox bi bari na looy dox looy wër looy lijjanti day lay daal di jaaxal fekkee ne tey ni yow aw wax kat nga takk wa day xëy wax wax ju rëy. di la tontu rek. tontu la tontu ju rëy ju gàtt ju ñaaw. ba nga koy pes ba koy pes doo ko tey. wallaahi kon jikkoo woon dóor mais moo la ci yóbbu. Mm-hmm. fekkente ne da takk ab jàmbatkat. yaa sama lii mu ngi mel yaa ngi dégg sama jàmbatkat ah man de wax dëgg yàlla sama xew mi nekk fii man ne aw ma lii aw ma laa aw ma laa saa boo ñëwee ci kër gi ma ngay jàngal li amul rek da nga naan man daal naa dem toog ci karam place ba mu guddi rek ba ñu xam ne tëdd na ma daan roy. rond-point <laughs> Liberté 6 fii. ci ci ci ci place publique yi. Uh-huh. da am borom kër yoo xam dañuy wàcc toog foofa. Uh-huh. te xamoo lu leen fa toogal dañuy toog toog ba ci ak nga jékki. du dara du du féexal seen xol nag ndax su demee ci kër ga la leen fa fekk waaye nag loolu bu mu tax loola. mbaa ragal ñu dem ci kër ñeenteel ba mooy ku tëkk ab ab ab gàntukat da nga woo nay defal ma lii mënuma ko may ma lii awuma ko rek. faqat xalaas door <laughs> jeex na loolu may ma defal ma lii aw ma ko. Uh-huh. mënuma ko uh-huh. may ma lii aw ko. kon ku takku ab doxkat da nga jikkoo fiir ku takk ab jàmbookat jàmbatkat da nga euh, am euh, euh, idée boo xam ne toog gara place la képp koo xamante ni da nga takk waxkat da nga jikko jikkoo fiir képp koo xamante ni da ngaa takk ab gàntukat da nga dëkkoo nay nay jeex na defal ma lii mënuma ko may ma lii aw ma ko xalaas alors vite fait yi sa dernier moo ak sa sa sa tàggatoo Euh, jaar na yoon question yi aussi euh, li ngeen euh, na tontu bi macha allah di leen jox di daje rek ba baaxul a ji yàlla nag mooy def loola. xalaas te incha lii moom lu nit ñi di wax lu ko biisaat bu soobee dañ ko biisaat lan ngay tàggatu. incha allah di nuyu waa Biscuiterie yépp nag ah, di nuyu suñu maire Mouhamadou Djibril di nuyu tamit mbooleem ñi nga xamante ne ni mooy fédération daara yi di nuyu tamit ittihaadul wataniya bu alquran ak seniko di nuyu tamit ndeyu daara yi nga xamante ne nii ñoo nekk Biscuiterie di nuyu tamit mbooleem waa jumaa yi ñu waa al ahlu quran waaye di nuyu waat sama xarit Adja Assu sama rakk mi tax ma ñëw fii di wax Cheikh Thierno maa ngi lay nuyu di nuyu son suñu soxna su baax si nekkaloon aji mm-hmm. macha allah turandoo sama rakk bi di wax ne leeral TV yàlla suñu sunu borom def balay déwén. amiin mu bokk ci télévision yoo xamante ni suñu waxee ban moo nekk au top ñu ne table leeral TV. Mm-hmm. incha allah maa ngi ci seen disposition saa bu ngeen ne acca rek. yow moom maa la soppa sax ba pare dana ca xam naa la nangu ci aj <laughs> bu soobee Allah subhanahu wa taala euh, kontaan naa bu baax a baax encore une fois nee naa leen maintenant on va recevoir tous les jeudis et les et les des invités waaye ñu kontaan bu baax a baax di gërëm ñu nekkoon ci régie bi ñoom ABC ñoom Pa Omar ñoom Yirim ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci euh, jàppandal gi ngeen ñu jàppandal ba ni ni ak ki nga xamante ne moom moo ma maquillé chaque fois di mare moo nekk ci kër gi gis ngeen aji ni mu bellee moom mii moo fi nañ ko alors mesdames et messieurs c'est tout pour aujourd'hui d'ici là prenez soin de vous dama ne télé bi ngeen doon xaar